Yeah, what's up man sama gars yi tey ñu ngi suñu cinquième numéro Gëstu Rap Gëstu Rap soo ko déggee comme d'habitude da ñëw dégg dégg lu bari si wàllum hip hop tey dama ñëw man bàyyi ma dalal bàyyi ma bàyyi ma nuyu leen. salaam salaam gars yi maa leen di déglu képp kuy suivre émission bi di la jox sa wàccuwaay te leen di wax merci ah c' est Kilino bi nga leen di gars yi yee dara leen jàmm suñu TV yee maan mais kindinoo mun naa am kindinoo lan mooy kindinoo kindinoo waaw kin mooy xale mooy enfant te man xale laa yaa ma gën a xam soo ko duusi si rab bi nekk débutant nag commencé faj ay rappeur waaw noonu la demee linoo mooy sama tur dëgg Aliou walla après def ko linoo waaw kin mooy enfant noonu la demee yee maan mais kii bi noonu dafa mel ni caaxaanul de. ndax dafa dugg si game ñëw pour fas yéene fajee na bëri. nekkul gars yi bàyyi nga xel de dafa ñëw pour faj leen. na nga demee mais kii bi noonu mën nañ xam tuuti sa parcours quoi bon di di bi nga soowee eh, doon si bopp. waaw mooy soo ko dugg si ogob nag muy ne woon ay depuis 2016 maa ngi commencé bind samay texte mais si 2020 bi laa dugg studio quoi waaw ah, si laa njëkk a dugg studio mais yàgg naa bind samay texte di denc. wala demee. jéemaan waaw mais kañ nga kañ euh, nga débuté normalement ci rap quoi. laa débuté normalement xool yàgg naa ko débuté nag di nekk sama répétition ak sama gaay di toog di dóor mais mooy loolu 2020 daal laa dugg si jiw ko waa fête 2020 bi. fête 2020 bi waaw. isaan maa ngi dóor ñaari sànq débutant laa comme ni ma leen ko waxee rek. <laughs> non bàyyil moo débuté mooy bàyyil moo débutant fii ku fi toog doo débutant <laughs> fii fii plateau bokkal yi si rap football laa nekkoon de waaw mais dama ko mujjee arrêté tànga ba mu bàyyi sama jàng si école football laa nekkoon avant boobu. bay dugg si rap mais yaa gën a xam am bàyyi jàng rek ne xam naa école waa attal si ko nag te nañ naa si am dara incha allah gëm fi ponkal teg seen tànk dama teg sama tànk bu soobee yàlla noonu la demee mais nga ne yow en nga ne joueur xam nga lépp moom bokk ànd bu waa noonu la demee am na ñu ko mën boo demee si man boobu waru mën a am waaw ngay concentré si benn affaire muy sama coow ak i bi noonu la demee. ay Kiddo mën nañ xam Kiddo yow da nekk ci label wala actuellement nekkoo si label. non actuellement nekkuma si label si ma fenn maay dem si si yoon yi fii sound yaa ngi gën a xam di jóg gars yi ñuy cause mais saa bi amaguma label quoi. mais Kiddo saa nekkoo ci label da ngay dem si yoon yi. ñu fay plus de 500. waaw loolu dañu xam kibinoo kibinoo maanaam parce que rab rab du métier. mën na xam kibinoo ci lan lay yëngatu quoi. waaw ci li ma yëngatu moom mooy loolu ku nekk ak si li nga yëngatu moom loolu vie privée la quoi. gis ko kenn taxaw si net ne ma lii laay liggéey lii laay job yaa ma gën a xam. incha allah yaa ma gën a xam rab du métier ma maa ngi sama métier maa ngi jóg bu baax saa yu ma xëyee maa dem liggéey su ma wàccee maa ngi nekk si bopp bi. ak noo koy dundee ak ko si rab noo ah, loolu du ma ne kii rek waaw man du may dugg studio moom yaa ngi gën a xam sama mère bi ma njëkk a dugg studio moom moo ma ko jox moo tax ma gën gëm sama bopp léegi dama gëm ne dara incha allah mais sama père nekku fi yaa ngi gën a xam. yaa ngi gën a wax dara nag.

ku ci gëm dara mën nga gis yi am saa ci deful sa ay caaxaan loolu la demee yaa gis ay dib dund gis ay ñoom ngaaxa yëpp instant ay kilifa lañ ñun foofu lañ bëgg a egg mais pas nekk di saagante dund affaire banditisme tux génn fii dugg fii non non ñun ngi coob te ngeen bàyyi jàpp rab bi comme affaire banditisme wala leneen te fi mu toll ñoom fa ñuy dem te doo xamante ne du ñu raaj ñun mën fa dem ba xam ne duñ taxaw di ran noonu la demee dib ku ko xool xam ne léegi kilifa la te rab bi moo ko def incha allah ñun foofu lañ bëgg a dem yéen maa yéen maa mais ci côté tur boobu noonu la ñuy ñëw quoi. parce que parents yi bëri nañu jàpp ne soo si nekkee yow yow maanaam nekk nga bànn quoi dañu jàpp ne yaa ngi tur. yaa waaw parce que loolu boo gisee parents yaakaar ko mooy gars yi nga nii dañ naan man balaa ma dugg studio pour mën dóor fa ma waayal loolu nekkuñ ci yooyu ñun. ñun dañuy dóor suñu saawa dem prise yaa ma gën a xam te duñu tux duñu def dara waaw léegi nag yaa ma gën a xam ay jeunes lañ nekk si yoon. mais pas ñu gis loo xamante ne nii moom la ñu bari ñu koy def te xam na ne ku ne baaxul yooyu noonu la demee. yeah man yeah man yeah mais kii dina wala si mel ne wala. non loolu yow si mel ne xëcc xam mën nañ xam kii saaw ni quoi saaw ni tey jii nii gars yi lay seetaan pas man mais gars yi seetaan yeneen fan si yoo xam ne xamoo leen. dañ suñu bëggoon suñu bëggoon découvrir euh, Kilino mooy kan fa la ñuy jaar. waaw Kilino soo bëggee découvrir da dem YouTube mun naa fa suñu chaîne YouTube da ngay tapé rek ñu andi la ko KID espace def nga consommé sound nga dem Instagram am naa fa page tamit yaa gën a xam ku mu bëgg suivre rek foog ngay jaaree. yaa ngi mais Kilino wala boobu mais joxoon gars yi dara ñu mën a mu jox leen gànnaar. waaw su ma fi seen jiit yóbbu seen fii di teglu patati tiig léegi sa dara sa jiir su waxati fiis ay foog sa marchandise ko doxat fii ñu daala fiis biir si last li du cuune day yandu rek même bu dee yoon bu jam jam des nañ tam tam yaa gën a xew tam tam bi jarab mais je tarap rap rap foog toi et tes paroles dama mos a taxaw na la pardon moi teg si teg si tanga jëndi KBC kon xam nga li nga DCD te li nga DCD foog say jàng rek kaajoor ma leen kaajoor li nga jarul may xalaat li ngay xalaat si man parce que je sais am na looy xalaat si man doxaat si man ay pexe si man ndax ma sonal ko. man gis ngeen de <laughs> dégg ngeen nga dégg ngeen kii xam nga faja ak ah, ba may may waa teeteen ak tubaatul xam na fala judo fala soso yaa ngi gën a xam li ngeen ko defee saa su ne ah, yaa ma gën a xam dañ ñu ñëw ñëw suñu rubrique ñëw découverte ay ñu talent yi talent kase yi xam nga bon jaar nañ fu ne garaayo fële nañ golf tey nag fa fii seet si woon Kid Ludo dinañ ko gis mooy Kid Ludo. baax vraiment mais Kid Ludo la bi. waaw ah, nga xam ne moom la Kid nekk nii incha allah nga xamante mu génnee suñu rek ma xam ne yàmbaar naa ci sama bopp. waaw loolu maa koy jëlee sama bopp soo projet yi ma nekk su gënee te kenn déggu ma man maa njëkk a jàppee sama bopp yàmba ak koo xamante ne lu dem fenn ngeen bàyyi si xel dina wax ne la nag maa ngi sant sama bu baax parce que am na loo xam ne moom si jàppale moo tax joom keroog li ma leen wax rek maa ngi ñaan yàlla bu am moom parce que am naa loo xamante ma teral sama yaay saa yu ma xalaatee loolu rek pour ngeen def si xel bu nekkul noonu mooy yokk nit joom xalaat yow sa yaay fi nga ko war a yóbbu fi nga ko war a dugal moo yokk nit joom mais pas ngay dem xool say noonu naan da ngay concurrence bi wax yee xam ci ci Mik TV quoi ak waa waa rubrique pour yéen quoi que bu gars yi def comme yéen te bañ a kenn gëm naa ne am na ñu ñoo xamante ne nii ay talent kese xam ne génn nañ laa gisoo quoi saa ko fii bëri na ay talent yoo xamante ne nii ñàkk leen woo dafa ñoom interview ba gars yi xam ne publier seen i affaire moo tax kenn xamu leen te pourtant ñu ngi jóg lu tóob ba tàgg ñu nekk ci kaw. est-ce que am na ñoo xamante ne nii ay am branlon moo tax ñuy siiw wala leneen ak leneen ci rab te fekk na defuñu fi dara war na yàlla am na ñoo xam ne ñu ngi si suuf di jóg loo xamante ne nii metti na trop te du mu mënuñ dem fenn. sa gars yi ñu doon jàppale dañuy seetaan nit ñi. ñëpp bu ngeen defee comme yéen war na yàlla léegi gis gars yi si kaw. waaw suñu talaa ñu ngi si dégg bu la bëri bëri bëri dee mais ku leen jàppale moo fa amul mais yéen a ko gisandoo ah mais producteurs yi bàyyi leen ci xel seen talent yi ñu ngi fii de. waaw ñoo ñàkk jàppale rek xam nga donc mais def leen seen wareef bàyyi leen xel kii li ñoo la faral fa jaar. def di wax gars yi yokk leen di abonné di abonné saa su ne ñu leen koy defee gëstu rap ni daf la yeemee.